ñu évaluer maison yi nga xamné d'accord dañ ko tass ñu fay leen tamit ces maisons là damay fàttali wa gaday tok nañ ak Mahmoud Saleh conseiller du président de la République dans les affaires politiques bu mu togué ak Mahmoud Saleh wa Descos tok wa gendarmerie tok Mahmoud Saleh ne wa yeen sax ñaar témèr ak juroom fukki kër ak ñett yi ngeen mabal ndax amoon ngeen keuyit ñu ne leen déet amuñu won keuyit dañ don rek appliquer ay ordres li moy Sénégal Sénégal bii nag ñaaw na gàkk-gàkk bii nag dañ ko fi war a jëlee xeexu gàddaay nag bu sénégalais jàppee ne xeexu waa gàddaay rek la da ngay ndax sa bopp xeexu waa gàddaay la waaye xeexu Sénégal yëpp la ndaxte bu ñu toogee Séné bu ñu toogee seetaan lii dal waa gàddaay ba sàcc yi nga xam ne ñoo jege président Macky Sall sàcc six hectares yi dina dal yeneen sénégalais dina dal ñeneen ci ñun moo tax nag ñu war a xeex ngir waa gàddaay mën am ndam ndaxte ndamu gaday moy Sénégal hectares yi raw ba ay samba boy ay ñu ñun suñu kër suñu d'accord mu en sursis nous sommes en sursis donc li nous suñu taxaway tay di wax nak président de la république fi force de l'ordre ñun ay kër 253 parcelles 253 maisons la 253 njabot ku nekk njaboot bu nekk bu fekkee fukki personne mu ngi ci bu yóbbu nga xam ne drame bi dramu ñaari junni ak juróomi téeméeri doomu aadama la te loolu nag du dëgg du yoon ay père mère soutien de famille dajale li leen yàlla may di dajale ay at ay at ay at wut pàkk jënd pàkk tabax suuf nga màbbal yooyu te amoo benn kayit bu la jox ordre nga màbbal yooyu scandale boobu nag dafa doy ñuy woo nag

25 juin Al bii di ñew ci place de l'obélisque à partir de 15 h nous avons amal rassemblement faux. C'est ci couvre-feu C'est ci état d'urgence lu wax président de la république moy suñu manifestation bu wara am jeudi 25 juin nañu may ñu amal manifestation boobu pour yuxul wa gaday pour yuxul PCCI pour yuxul ABS yuuxul waa euh, Kignanbour Guéréo wa Rendo les wa ak ñom ndaxte les victimes d'accaparement de terre les victimes de démolition de maisons les victimes d'arriérés de salaire et de licenciement arbitraire de bëri donc premier plan d'action est moi, waajal suñu manifestation bu 25 juin ajjuma lañ ko déposé nous ngi xaar commissariat central Euh, commissariat plateau plutôt comme d'habitude pour def l'enquête de routine une manifestation boobu dañ amal ndaxte nag ndaxte président de la république de confiner caxat caxat yi ñuy vous président de la république vous confinez confiner les manipulations de la justice aux ordres justice Bon d'accord euh, li vous fi nekkee rek borom jàppale borom doole ba vous na interdiction de rassemblement interdiction de manifestation d'une ko taille, d'une duñ ko vous ëllëg ñaareel bi mooy ñu ngi nous ak comme ñu ngi fii ak pour lan Monsieur Guy, oui. je suis le lieutenant Amidouba, Tout à fait. Alors ça là, c'est formellement interdit par l'arrêté du préfet. D'accord. N'est-ce pas Donc je vous demande gentiment de partir et de disperser. Wow. C'est bon. D'accord.